mbokk yi kon asalaamaaleykum dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi euh, tey nag ñu nekk ak ki nga xam ne moo di euh, Bassirou Diomaye fay nga xam ne moo jiite képp ku mu mën a doon koo xam ne kii cadre nga ci euh, ñi nga xamee ne ñoom la ñu duppee les patriotes wala boog Pastef rek li gën a gàtt mu di parti boo xam ne bi ki nekk ci bopp bi kenn du ko présenté kenn mu di Ousmane Sonko Bassirou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Maodo. Mhm, di la ziyaara bu baax a baax. di di la ziar de loo di nuyu sénégalais yëpp ngi nga xamante ni ñu ngi seet ñu ngi déglu émission bi. fu réew mi toll. <laughs> réew mi de fu mu toll xam naa ne sénégalais yu bëri ku ci nekk ci fi nga féete. Mhm. am na tontu goo mën a am ci sa bi ndax ki nga xamante ne day liggéey guddi. Mhm. ñu ne ko ñëpp mën nañu liggéey. ñëpp mën nañoo jëflante ñi jaay ñi jënd ñiy dox seen soxla am daan seen doolu suturlu mm-hmm. waaye yow mi nga xamante ne sa activité guddi la dootoo ko mën a defati mm-hmm. te état bi joxul dara te joxula dara jëlul dara teg ko sa loxo pour nga mën ci jàpp di suturloo ñi ñeneen di suturloo mm-hmm. ñooñu boo leen laajee tey réew mi fu ñu toll xam naa ne dañu la ci mën a wax seen njàqare seen tiis fii nga xamante ne tamit euh, ci wàllu politique euh, ñi nga xamante ne féete nañ euh, ci Euh, yàgg a xeex démocratie yàgg xeexal yàgg a xeexal démocratie yàgg a xeexal euh, liberté euh, te bañ tamit nooteel samp ci réew mi ñu fekkee koy ati ati ati ati ngi nii yàgg ko xeex ak ñeneen ba fu ñu ba acquis démocratique ñu am tey bu ñu gisee ni ñu koy salfaañi tamit boo leen waxee laajee réew mi fu mu toll dañ la mën a wax ne réew mi euh, jafe-jafe yu métti ñoo fi am ci wàllu deltu gannaaw ci côté boobu. est-ce que est-ce du ngeen dem ba mu yàgg yéen ñi nga xamee ne yéen a bootu ci Ousmane Sonko ñu duppee leen ay nihilistes xanaa nag koy def dana am loo def nag lu baax nag. non ah, waxuñu à la limite oui. non non réew mi réew mi bon ñii boo dee tàkkusaan nangam bu dee timis bi ñi daan liggéey amatuñu fu ñu teg seen tànk. à la am na am am na am na lu baax bokk. xam na xam nga ci réew moom bu ñu jëlee par at gune mhm. li tolloo nii ñeenti junni milliards teg ko sa loxo. Mhm. nu mu néew néew néew mu am loo def waaye dafa fekk opposition puisque pouvoir am na ñu bari ñoo xamante ne tamit lu ñuy euh, lu ñuy lu ñuy wone mooy lépp lu baax mhm. rôle opposition dem nekkul dem feelu waa nguur gi pour ne nguur gi kat li muy def lii ak lii ak lii baax na waaye nag dañuy apte pour signaler loo xamante ne pour ñun buñ ko defaroon mu gën a baax bu ñu jëfe woon leneen mu gën a jàgg uh-huh. mais ça veut pas dire que booy souligner wala booy duut baaram ci loo xamante ne doxul dara doxul ci réew mi wala dara baaxu fi loolu bokkut ak li nga xamante ne moom la ñuy soutenir. d'accord Ousmane Sonko ñëpp dégg nañ kàddu yi nga xamee ne mujj na ko daal di génnewaat waxaat. Mm-hmm. Euh, affaire bi est-ce que dafa gën a lëndëmal parce que ci même ins ci ci ci bi mu waxee ba noppi daanaka quelque heures après la ñu déglu la ñu déglu euh, euh, Adji Sarr alors. diggante boobu noonu ñu ne bon wax na lépp amu ci woon benn gêne dafa ñëw rek wax ko comme comme si vraiment li muy wax dëgg la gu wér xel mi dal est-ce que laaj bi mooy est-ce que dañoo dalal xelam pour mu nekk à l'aise wala dafa am certitude pour mën a répondre juge bi nu mu ko neexee te kenn influencé wu ko loo c'est non xam nga bu ñu la dee bu ñu la dee tuumal ci loo xamante ne defuloo ko sa première ressort maanaam ci fi nga mën a sukkandiku du lu lay nit di wax di dalal sa xel waaye yow sa diggante ak sa borom ak sa aqulaay taala mooy njëkk doon sa tribunal mooy sa tribunalu conscience ni ñu koy waxee. Ouais. Ousmane président Sonko depuis bi affaire bi commencé. amul lenn loo xamante ne bu taxawee wéet ak moom ak borom am na lenn loo xamante ne mu ngi koy mu ngi koy jiiñ boppam ci tuuma goo xamante ne def na def na lu mu wartu woon def. ndax buñ ko doon wax ne gars yi ñu ngi lay jéem a fexeel ci fi nga xamante ne foofu ngay dem di fa maase woo. xamoon na ko. yàgg nañ ko ko wax. ñun am na ñoo xamante ne ñu xóot la ci nguur toog nañu ak ñun fu wéet a wéet wax ñu ko ba sax bi ñuy affaire bi di waaj a yàgg nañu ko wax waaye nag dafa di koo xamante ne dafa wax ne man fii may dem ne du sam bànneexu bakkan moom ma fay yóbbu ab docteur bu may topp moo ma ne foog nga koy def toog naa fi ren ba weeru mars avril ma feebar fi feebar bu metti bu boo moytuwul naroon naa jël opération risque boo xamante ne finalement bu ñu xoolee chance yi pour mu am ci ndog-ndog yoo xamante ne dootuma ci mën a jóg dama préféré bañ ko def ñu nekk ak docteur yi di faj di faj di faj ba tane am docteur bi nee ma li ma la waxoon pour nga koy def mun defoo ko donc foog nga delluwaat ci mu ne nag donte ñu ngi may araftu ci loolu man au moins dina am yoo xamante ne. dinaa ko jël mais xamoon na ne ñu ngi koy topp ci foofu màkkaan moom mu demoon. si si waxoon nañ ko ko. mais xam nga boo boo boo li nga li nga mën a def mooy bu ñu la waxee del faju boo deme ba bàyyi ko gis ne yow yaa ngi bëgg faatu astafirullah wala yaa ngi bëgg waaye yaa ngi ci bëgg loru loru oui dangay ngay bàyyi lépp def li ko mais dangay def li la soowee parce que li ngay ragal yëpp ci wàllu nguur boo dundatul balaa ngay naam ne fa boo dundatul wala mënulatoo sa bopp nekk ci chaise doo ko def waaye dafa ne man segem fi may dem sama diggante ak sama borom defuma fa dara lu ñaaw te jël naay précaution yoo xamante ne tuuma gu dëgër mënu fa jóge ndax fi may dem kër la boo xamante ne ñi fa nekk borom ki fay liggéeyal ak borom këram la ak njabootam te maa ngi fexe ba fépp foo xamante ne ñu ngi may ñu ngi ñu ngi may ñu ngi may faj ma fexe ba ñaari nit nekk fa moo tax boo xoolee tuuma bi donte état jël na ko yëkkati ko ngemb xale bu jigéen bi nëbb ko euh, euh, njabootam ba mënuñu jot ci moom mënuñu wax ak ñoom Sénégal yëpp xam nañ ne que lii nii euh, amul dara lu ci tax justement loolu laa la laaj nii xëy na da tontu ñaar yoon mooy. soxna si tey ci presse bi li ñu liir mooy. bi mu jàkkaarloog juge bi dafa nekk à l'aise mais dégg ñu ne daal wax na sax ba wax yu baree bari nga xam daal d'après presse bi lañ bind ah presse écrite bi ne moom moo tax man la est ndaw si tamit dalal lu ñu xelam wala dama laaj nag bala dalal dañoo dalal xelam wala boog dafa am ci lu mu sukkandiku wala xam nga ndaw si déjà ñi la ko sant boo xamee nay borom doole la rek xëy na loolu mën na doy pour dugal la ci jéego gu toll nii ku ciy dugg am na déjà balaa nga ciy dugg fi ñuy dalalee sa xel loolu ci njëlbeen gi la. waaw dañ naan la amul problème ak yooyu wala loolu nga. loolu bu loolu rek moo mën a tax nit song xale bu ndaw song lu toll nii te gis nga nu mu yëngale réew mi benn bi ci tegu mooy bu mu amee ba let ba tey njabootam sax ñooñu dañ dañ ci xeeb seen njabootam bi nga xamante ne ñoom ñoo ko jur yar ko ba mu toll nu mën a toll. làq ko njabootam seen waajur yi mënuñu teg si moom bët mënuñu wax ak moom téléphone bi ci tegu mooy euh, bi loolu weesoo dañ ko jël. ne tegal nañ ko protection policière muy kenn koo xamante ne bu doon dox kenn du ko xam léegi ñaari 4 x ñoo koy andi 8. Euh, est-ce que est-ce ñu sécurité tamit man xam nga loolu luy dalal xelu ndaw si la. parce que loolu yëpp amu ko woon kon loolu day gën da koy gën a won ne que yow dara mënula dal. te donte dara mënu ko dal wala da jàpp ne am na ñeneen sénégal yu def loolu ñun porté plainte te kenn protégé wu leen. non mais loolu bari na. Ah dem dans le cadre ci histoire bi ci boppam kese kese kese. mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ay témoins te ñu teg leen pression ñu bañ a ñu bañ a ñu bañ a ñu bañ a sedde ñu war leen xaalis ñu bañ sedde ñu menacé leen ñu bañ a sedde kenn joxu leen protection bi war ba keroog dégg naa benn journaliste wax ne ndaw borom kër gi dafa génn ñu boole ko gay ndaw ñu ko sànni xeer ba bopp bi toj ñooñu kan moo leen protégé tey kenn protégé wu leen parce que taxawuñu ci li nga xamante ne ñii lal complot bi nii noonu lañ bëggoon ñu taxawee loolu kese mais c'est terrible euh, ma fàttali na ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci jano bi ak euh, kii nga xam ni moo di Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne moo jiite cadre yi nekk ci parti bi di Pastef les Patriotes alors yéen cadre yi ci seen bopp moment bii ñu toll ngeen nekk ci guddi gu bët setagul te ngeen bokk ci parti Ousmane Sonko di ay cadre di ay boroomi xam-xam jàng euh, ñu xam leen bu baax a baax ci réew mi jaaxlewu leen de damay laaj rek de. non non non je veux dire lu ngeen taxawee. parce que affaire bi est-ce que amul ba mu yàgg mu nekk lu énigmatique ci seen kanam wala fu ngeen jëm wala lu ngeen nar. non xam nga parti bi moom. ñu nekk ci biir parti bi nu mu gàtt gàtt benn at rek yàgg nañ gis ne que parti bi bu mu sosoo ba léegi ba nit ñu commencé gis tànk tànk yu mu yu mu commencé doxe rek ci lañ ko commencé song. sénégalais dañ koy fàtte waaye cong gu gën a rëy gu gën a métti gu ñu song parti bi moo nekkoon. bi président Ousmane ko waxee ne député yi ni ñuy fay seen impôt bi jaaduwul jële woon ko ci document boo xam ne mu ngi woon ci site ministère économie et finance ba léegi sax jàpp naa ne boo fa demee di nga ko fekk ba dañ doon indi indiqué nit ñi ban document la wax leen ban page la nekk ñëpp di ko xool loolu lañ ko toppee woon jiiñ ko ne yow da nga sulli ay mbootu yoo xamante ne waroo ko sulli dal di ko dàq premier acte deuxième acte pour citer deux trois rek parce que ëpp na noonu am na suñu militant boo xam ne dañuy def meeting mu bokkoon ci ñi koy organiser mu delluwaat këram ñu rey ko est-ce que boobu ba léegi dégg nga. mooy ki de côté Kër Massar wala. Mariama Sarr yàlla na ko. Mariama Sarr way ñu faat ko mu bàyyi fi njaboot gu gu sew goo xamante ne état toppatoowu ko boo xoolee ci boobu nguur gi sax présenté wuñu condoléance waa Pastef noonu lañ ci noppee ba nii procès amul bu ci loolu jeexee song nañ suñu siège ak yi jaasa xale yi tëb daw. ba bi ci mujj mooy dem nañ fi parrainage ñëpp di def seen fiche parrainage ñu dem ba ci kër suñu waajur leader. di fa faq di fa bëgg a jël fiche de parrainage yi ñu ko waxee Sénégal kan gëmuñu. mooy Casamance. exactement dañuy wax ne loolu mënul nekk ana photo yi ana vidéo yi. oui dafa il paraît que est-ce que gendarmerie fa demoon wala la xewoon. mais gendarmerie la woon ñu dégg Aly Ngouille Ndiaye nekkoon ministre de l'intérieur ne gendarmerie sax amul Ziguinchor mais ñun bu ñu ko toppee dem ci yoon le 6 février 2019 avant cam ci biir campagne électorale bi la ñu daan gendarme Nicolas Mendy pour violation de domicile de de de de la mère du président Ousmane Sonko kon cong yi yàgg nañ. ya maanaam danga bëgg wax ne yàgg nañ leen a xeex. yàgg nañ ñoo xeex yàgg nañ ñoo tooñ te bii tamit beneen façon xeex la rek 94 milliards sax yi nga xamante ni ñun ñoo ko découvrir def ci suñu enquête pendant huit mois ba am ci firnde yu leer bind IGE bind procureur bind nag dañoo dem ba ca biir ñu bëgg ko wëlbati dugal ci assemblée nationale mu def commission d'enquête parlementaire am seetal ñi nga xamante ne ñoo ci taqoon rip bëgg a tuumal Ousmane loolu daaw rek la woon. ñu xeex ba génn ci kon loolu yàgg nañu am bu amee nag ci biir parti bi lu ñuy njëkk a def mooy trouver les ressorts yu ñu permettre ñu défendre maanaam am laay gu tax cong gi ñuy song ak faagaagal bi yoo xamante ne mooy seen mébét bañ a antu te loolu moo ñu fi ci ndimbalu sénégalais yépp implication militant yépp ak ci coobal suñu borom ci tànk yooyu lañ taxaw ba tey. mais yaakaar ngeen il am na ñu ñuy ruumandaat ne quel que soit issue affaire bi Ousmane Sonko dañ koy tëj am na ñu koy ruumandaat. waxuma ne looloo am mais sénégalais yi ci seen ci ci seen majorité bi écrasante majorité sénégalais yi dañ ne usman bi boo def ndànk dóor ci gaa yi. mais xam nga loolu ñaar ñaar ci ñaar ci ñaar la lalu. Hmm. bu ci njëkk mooy bañ am benn confiance ci justice. dem ba suñu yoonu réew nga bañ a tee ci am benn yaakaar ci kóolute bi ngay mën a jël ne booy demee ci yoon ki am dëgg dina am dëgg waaye bu fekkee ne ñëpp jàpp nañ ne bu nguur demee ci yoon. mu doon loo xamante ni ñëpp xam ni ñoo nekk ci gannaaw kon nguur mënul ñàkk loolu mën na tax sénégalais yi seen xel ñaaw ne bu même bu fekkee ne dem nañ ci yoon même bu fekkee ne wax ji waxu kasaw kasaw la te fu muy mujje mooy li ñu bëgg ñoom dinañ ko am loolu moo tax sénégalais yu bari di waxee noonu waaye li gën a tax sénégalais yu bari di waxee noonu mooy posture défaitiste tamit maanaam jàpp ne que lii nii la mel kenn mënu ko xeex wala boog nga jàpp ne ñeneen ñoo ko war a xeex yow si yoon nekku ci donte yow yaa ngi koy métti di ko naqarlu dañu nekk ay askan yuy bañ askanu bañkat te ñépp am loolu di ko dund bu bu bu jotee ñu war a fajal seen bopp ñoom ñépp génnandoo kenn du xaar sa moroom du ñu xalaatee nii ndax am na ñoo xamante ne nguur gi fi nekk ñoo ñoo leen ëppoon doole foofu nootoon seen askan ani Ben Ali ani Moubarak ani Saddam Hussein ani an ani an ani kane gi kan am na bu ñoo xamante ne fii dañu jëloon seen réew noot leen ba kenn du ñemee ñemee nooy boo demoon Tunisie dañ doon wax na ci gannaaw tunisien bu nekk. nguur gi am na benn alkaati mais bu ñu demee ba benn benn waay ñu ñu ñu tooñ ko mu mer ci tooñ boobu xaru xaru gu ñaaw sotti boppam essence taal boppam ci diggu marché ci la peuple tunisien jóg na lii dafa war a jeex ñëpp xam ne am na limite yoo xamante ne franchir nañ ko te ñoom ñoo ko war a fajal seen bopp ci lañ ko fajalee seen bopp si sénégalais yi wax loolu yépp déjà jël seen bopp. Euh, bàyyi koog Macky Sall mu jàpp ne lu lu ko neex war na ko mën a def Ousmane Sonko parce que ñoom dañu nekkul ci posture lii warul mën a dem te ñun ñëpp ko war a bañ buñ ko defoon ñun ñëpp ñu bañandoo ko te ñu jàppee ne warul tegu ci yoon parce que buñ demee bay wax ne quel que soit nu mu demee maanaam ko Ousmane am dëgg dañ koy tëj Ousmane bañ am dëgg dëgg dañ koy tëj bu fekkee ne nag nekk nga ci réew moo xamante ne boo amee dëgg mën nañu la tëj te ñëpp jàpp ne lu normal la di ko xaar ba di ko waxtaane mais ça signifie que war nañu xoolaat ban askan lañ bëgg a nekk li nga xamante ne ay nit xeex nañ ko ñàkk ci seen bakkan tuur ci seen deret ñàkk ci seen liberté ndax tëj nañ ko te foog naan depuis 1960 ba tey mën nañ ci lim ay cas yu bëri ay figures symboliques yoo xamante ne tëj nañ leen ñii rey nañ leen bi ci mujjee rek rek rek rek 2012 euh, la entre fin 2011 début 2012 ci bi nit ñi doon xeex pour troisième mandat bañ am bi nit ñi doon xeex pour dévolution monarchique bañ a am bi nit ñi doon xeex pour bàyyi bañ a dem bàyyi fi bàyyi bàyyi fi doom mais ñaata nit ñoo ci dee laata Macky Sall di fa falu ñeent fukk ak ñeenti nit ay policiers ak ay ñoo xamante ne euh, duñu ay takk der mais ñooñu lu ñu doon xeex ba tey ñu am ko tey am lu ñuy bañ est-ce que dañu war a bàyyi kenn nit ku ñëw ci climat boobu maanaam ci ci ci contexte boobu profito ci falu président mu gën a salfaañi ak ak yëleef doomu aadama yi nga xamante ni xeex nañ ko ba sàmm ko Sénégal loolu jàpp naa ne benn sénégalais waru ko nangu te gëm naa ne dañu am sénégalais yoo xamante ne dinañ ci xaar seen tànkatu bay xeex ba fi seen doole yem léegi euh, pa euh, euh, Diomaye fay est-ce que parfois tamit xaabaabalu leen c'est-à-dire tooñu leen Macky Sall yéen lu jëpp ngeen ne Macky Sall la parce que ci kaddu Ousmane Sonko yi ñu dégg yëpp moom depuis le début suñu waxee mu ne Macky la ko def est-ce que dafa am est-ce que est-ce que Ousmane Sonko dafa am ay ay firnde. yu ko wér péng ne lii Macky sàll moo nekk ci gannaaw wala dafa wax rek sànni ci mbooy gi pour sànni Macky sàll parce que tamit soo naan nit ki moo def moo def moo def est-ce que am am ngeen lu leen wóor ne lii Macky Sall moo nekk ci gannaaw. Euh, sëñ Maodo bu gis nga bu fekkoon ne lii dafa xëy rek dal suñu kaw. Hmm. mën nañ nekk di wër fan la jóge mais li nga xamante ne dañ la wax ne yow joomaay fi ngay dem nii Maodo Faye nee na ma dina la fa kar def la nangam nga koy dégg di ko dégg. di ko dégg ba ñu kar la fa li ngay njëkk a xalaat mooy li liñ ma doon wax te ñi la koy wax information yi ñu la mos jox ci Maodo Faye nu muy jëfee rek di ko waajale jëme ci yow noonu la doon demee dangay wax ne lii li ñu ma doon wax kon Maodo ko def loolu ngay njëkk a jàpp bi ci tegu nga xool ni mbir mi demee Sénégal dañu jékki-jékki ñu ne ñu deuxième vague ñëw na nee ñu état d'urgence Thiès ak Dakar kenn comprendrewul boobu jurbel moo ëppoon Thiès ay cas Kaolack moo ëppoon Thiès ay cas ñu woon état d'urgence ak couvre-feu Kaolack ñu ko Diourbel ñu def ko Dakar ak Thiès kese toog seen bàyyi sénégalais yi nooyal leen ba sénégalais yi fu ñu to fu fu fu takkusaan jotee ku nekk di xool naka ngay def ba gaaw a egg sa kër pour couvre-feu bañ la fekk ci ci biti loolu doyul ñu commencé. loolu mu jotee Ousmane Sonko. mais loo loolu la ñu waajaloo loolu la ñu waajalee ko bii nag parce tey ku nekk mënatoo génn ci guddi di xeex wala di def yenn yi dañuy jàpp sénégalais yi nooyal leen ci loolu bàyyi sénégalais yi ñi tere ñu liggéey guddi ñi ñu tere leen ñu ñibbis tranquillement seen kër yi ñu bàyyi nit ñi di continuer di dugg ci biir oto yi wàññi ci wàññi ñu seen chargement bàyyi xele yi ñu continuer dem ci classe yi di nekk di togg ak ñaar ak ñett ci table banc yi bàyyi nit ñi ñu dem ci jàngo ci jàkk yi bàyyi nit ñi dem ci marché yi ñu def seen couvre loo bëgg def tey ne manifestation ñu nee la couvre-feu bëgg manifestation bi nga xamante ne waa FRAPP ak Pastef Dakar waajoon nañ ko lan lañ ko tere couvre-feu bi ak arrêté d'interdiction bi fi nekk bi liy xewee Antoine Diome dafa génnaat dem ministère de de de la santé ne yokkaat nañu couvre-feu bi ak leneen ak leneen mais li ci tegu mu ci li ci tegu mooy lu ñu lay tuumal mu am ñi la koy miimal wala waxuloo ci dina am ñoo xamante ne sax seen xel mën na tey ñaar waay yow ndeyu mbi gi nag boo demee ba tuuma googu ci say wax yàlla nattu la nga nangu ne li ñu lay wax nii am nga loo ci laale. kenn waratu a fu mu ko waxee. mais président Macky Sall moo dem ba ci fi keroog. waaw dafa ne moom yooyu du ci dugg parce que nee na ce sont vraiment pires adversaires en politique c'est très ba yooyu du ci dugg quoi. wax ñetti wax la. d'après d'après li wax. ñetti wax la bi ci njëkk mooy ki nga xamante kii mu dal nii mooy sama piir adversaire politique. maanaam kon moom adversaire politique am yi dafa am yu baax am yu tane. am yu bon. Ah, parce que le mot pire mooy bu bon. waaw waaw pire waaw pire vraiment c'est un peu. waaw c'est xaw na doy waar tuuti bu. bu dee ci déggin boobu la. déggin boobu rek lañ ci mën a am. parce que am nay adversaire am na yi ci baax kon ñi ko sonalul la am na ñu ko xaw a sonal tuuti waaye mën na mën na waxtaan ak ñoom am na ñoo xamante ne ñoom moom daanaka noonu moo nekk seen diggante te kooku noonu la caractériser Ousmane Sonko kenn waxu ko ne Ousmane Sonko ngi nii il se réclame du pire du meilleur ou du moins moom moo jël Ousmane Sonko peinture ko ne. mooy adversaire am gu yées benn mu nangu ne complot la parce que ne man am naa jot def leneen lu dul di complot kon moom ci boppam nangu na ne li xew nii complot la. non non non non mais parce que parce que il a entendu le mot complot. est-ce que peut-être non de peut-être moom mënuñu ko wax est-ce que président de la république ci fu mu toll. dafa war lu mu dégg mu jëfee ko wala mu waxee ko no moom day assume ses propos. yow yow à travers ses propos da ngeen cee déceler moom accepté na ko. mais koox fañ gis nga bi mbiru njëkkee xew boo seetloo kenn ci waa APR nangu ci woon addu semaine bii lañ commencé communiquer ndax ñoom dañuy jotoon consigne ci moom ci boppam président Macky Sall ne affaire bi nañ ko jàppee na affaire privée la diggante Sonko la ak Adji Sarr suñu yoon ne ko ci pourtant bu ñu defee loolu terewul woon ñu làq Adji Sarr mbokkam yi ay mbokkam yi bopp ñu toll nii mënuñu woon gis Adji Sarr ensuite ñu noppi deux semaines waxuñu ci ñun ñu jàpp suñu communication di wone fi mbir mi lajjee di wone fi mbir mi lajjee ba sénégalais yëpp xam ne lii lii Macky Sall doon fexalee sonk raje ko doon ko fexel di jéem a nanguy fiches de parrainage doon ko fexel ba ay ba ñu rey militant Sonko doon ko fexel ba ñu attaqué siège am doon ko fexel ci 94 milliards noonu la bàyyeewul te du sonk la commencé ndax def na ko ñeneen ba am lu ma bëgg sénégalais bi ñu xamee loolu nag ñu obligé génnaat moom moo ci njëkk bu mu génnee nii la ko waxee kenn tegu ko pistolet kenn saxalu ko lem moom moo toog gis na que dafa war a communiquer aborder question bi wax ci lu mu wax nit nag loo wax te doon kilifa doon mukkalaf jiite lu toll ni réew dañuy jàpp ne sa wax jooju lu ñu la mën a jàppal la man bamtuwaat mais kon li yow su ma la déggee li président wax ci toi wax ko fii ne euh, par exemple ay problème complot du ma dugg ci ay problème complot la moo complot moo leen déranger non dafa ne lii xew nii dal sama Euh, pire adversaire sama pire adversaire maanaam kenn ku nekk ci ji ku ma ku ku ku yées ci ñi may ñi may xëccool li ko dal nii oui man du loo xamante ne moom laa moom laa koy ñaanal oui mais non ensuite mu ne man du ma am naa jotul leen am naa yeneen lu ma def waaw lu dul lu dul di complot maanaam kon dafa jàpp ne moom complot la di ci seetal boppam. ah je comprends xam naa fi ngay waxee. exactement léegi léegi moom. da nga jàpp da nga jàpp ne kon ci biir wax ji da nga ciy dégg ne Macky Sall accepté na complot am na. merci beaucoup de bu mbokk ci bañ cee bokk. exactement ok léegi complot complot nag maa ngi doog a xam fi ngay waxee bu baax. exactement complot nag tey boo jëlaatee wax jooju nga delluwaat ko ci gannaaw ci pire adversaire kan moo am intérêt wu comploter contre son pire adversaire lu dul ku ko jàppee pire adversaire wala ñu koy jàppal tànk. autrement dit. autrement di Oui. Macky Sall kese moo am intérêt wu complot complot boobu mu nangu ne moo am ci ci ci ci ci jëmale ko ci Ousmane sonk pour am lu mu bëgg ni mu ni mu ko amee woon ba faagaagal Khalifa sal ni mu ko amee woon ba faagaagal Karim Wade te complot bi doon moom la ak ñi mu ko sant ñoo ko def. ok euh, ba léegi ñu ngi ci jano bi fii ci 98 point 5 ci Sud FM seen rajo euh, ñu toog fi nag ak Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne mi ngi bokk ci parti bu Ousmane Sonko mais également euh, nekk tamit ci cadre yi nekk ci Pastef maanaam ci parti boobu ba tey Ousmane Sonko information laa la jox mais xam naa ne yëg nga ko ah Ziguinchor foofu démb dañu xëy police ñëw. fan yi di di di génne pneu yi pneu yi di dajale di yóbbu di denc pneu yi ci mbedd mi quoi vulgarisateur yi di nangu mais pourquoi cette lan moo tax ñuy ba noppi euh, administre maire yi baag ñëpp daal ba noppi tamit tere tamit ku jaay essence par détail en tout cas Ziguinchor moom ramassé nañ yëpp tey sama journal bi ñu ngay en que du yéen gouvernement bi avec ses renseignements dañoo xam ne yéen da ngeen a taal dëkk bi c'est juste une une question. non ñun taal ñu benn dëkk. Euh, li xew nii ni ma la ko waxee boo gisee ñi ci am lu leen metti yëpp te fas yéene xeex dañu lay wax ne du usmaan sonk la ñuy xeex. fas xeex nga wax de. waaw dañu la wax ne résistance mooy loolu mooy bañ dañu ne du usmaan Sonko moo ci am solo waaye nag lu ñuy salfaañee ak ak yelleefu doomu aadama ak ak démocratie bi nga xamante ne xeex nañ ko ay ati ati ngi nii nit ñëw bëgg ko salfaañi loolu la ñuy bañ moo tax. du waa kese nga gis opposition yi yu muy bëri ay divergence yépp boo xoolee ci bii yoon loolu seen divergence teg nañ ko fee mel ni seen mbiru bopp la moo tax nga gis opposition parlementaire bi nu mu comporté wo ñi nga xamante ne ñooy les mouvements citoyens euh, Y'en a marre euh, quoi FRAPP coalition activistes yi coalition la peuple ak ñeneen ñëpp noonu lañ ko jàppee jàpp ne dañu war a xeex parce que bu ñu xeexul li boo moytul dinañ toog seetaan ba li am ci yeneen dëkk yi maanaam nit ñëw falu bañatee faa jóge ba jox jóge fa jox doomam noot ñëpp boo moytul moo fi am te noonu la ci universitaires yi nga xamante ne amuñu coloration politique toogee lu mat téeméere gi ñaar ay nit ñuy jàng ba seen ba dem ci fi njàngale gën a kawe def seen manifeste pour dénoncer ni àq ak yelleef fi aad doomu aadam yi di deltoo gannaaw ci gannaaw noonu la société civile à travers cinq organisations yu ci gën a am doole tey que muy RADDHO que muy la Ligue sénégalaise des droits de l'homme que muy Afrikajom que muy le forum civil social sénégalais ak ñeneen ñoo xam ne mën na am sax fàtte naa ak Amnesty International bu Sénégal bindee ci ko def communiqué ci affaire Ousmane Sonko pour dénoncer li nga xamante ne moo fi xew kon liy xew nii nit ñi di jóg di génn di xeex du mbirum Pastef kese nit ñi nag bu ñu dee xeex li ñuy njëkk def mooy dañu bëgg manifester wane marche pacifique wane ni li ñuy def nii ànduñu ci soit dañ koy may espace de liberté mu exprimer wu wala mu obligé fippu te loolu yëpp préparation bu ñuy def ci gannaaw andi ay couvre-feu tey boo demee tey bëgg a manifester ci yeneen régions yi kenn du la tere parce que affaire bi eggul foofu mais puisque contestation yi ci gën a vif diggante Dakar ak Thiès lañu nekk foofu lañ ko yemalee sénégalais yi nag ñoo toog ba xam ne lii raam ci ñag wala jëm Macky mënul ñëw ci Sénégal ñu fekk ay nit di xeex di xeex di xeex di xeex ba Sénégal nekk vitrine démocratique ba moom laata muy falu doon xeexal vitrine démocratique boobu moo taxoon ay doomu aadama seen bakkan rot ci mu ñëw fàllu ci condition yooyu loolu rek waroon na ko doy sas pour mu gën a liggéey luy jëmale démocratie Sénégal ci kanam premier chose bu mu wax mooy man sama objectif mooy dinaa jël Séné opposition Sénégal dinaa ko réduire à sa plus simple expression maanaam dinaa noot opposition bi seen baat kenn dootu ko déggati ci kaw est-ce que démocrate ak koo ku xam liy démocratie noonu la war a jëfe jël ko def ko objectif am depuis traque des biens mal ñi nga xamante ne ñu ngi woon ci liste ñi ñu doon traqué ci bien mal acquis yi ana ñu am na ci nekk ay ministre tey kenn lañ ci soxla woon jàpp ne ko rap tëj ko 3 ans génn ko ci dëkk bi ci condition yu kenn xamul saa yu mosaana wax damay ñëwaat ñu ne ko waaw mais boo ñëwee li nga ñu yoral nga fay ñu ko mais tant que mu ngi toog foofu kon bu fekkee ne yoral na Sénégal dara Sénégal yoonam nekku ci ñu togg ñu jóge ci Khalifa sal commencé def marche ma kii euh, tournée politique am ñu ne ko da ngay arrêté sa tournée politique mu bañ tournée politique bu mu defoon Tamba mu réussir ci la waxee woon ci la ko ci lañ ko convoqué commencé indi affaire caisse d'avance gis nga lii di xew nii man xamoon naa ne attaque dina am xaw xamoon nag ban nature lay nekk parce que bi ñu defee suñu téléthon yi suñu nemee ko tour bi. seen seen cent millions yi. Sénégalais yi jël seen xaalis di financer pour départ Macky Sall parce que interprétation boobu lecture boobu lañ ci war a am. sénégalais yi jël seen xaalis di financer départ Macky Sall waaye sénégalais yi jël seen xaalis tamit di ko doolale ki nga xamante ne moom lañ bëgg mu remplacer Macky Sall boobu ci guddi gi deux heures du matin ci boobu la euh, ministre de l' génne communiqué di menacer di dissolution ñëpp soofantal ko ñëpp ñàkkal ko fayda mu xam ne bii du dox ñu dal di accélérer affaire bi jël benn innocente boo xamante ne jigéen ñi lu ñuy xeex ci àq ak yelleef yëpp pour jigéen ñi am nu ñu leen di protéger ñu jël ko di ko ñàkkalee fayda di ko salfaañi. est-ce que bu leen considéré woon ma àpp sax benn ci jargon journaliste yi lii xew nii am na wala amul loolu yàlla rek a xam ak ñiy atte ji ëllëg ñoo xam est-ce que mën ñu ko woon a considérer comme un fait divers banal ku nekk dem sa yoon. parce que même bu fekkee Ousmane Sonko député la am na kër ci dëkk ci réew mi mais est-ce que euh, aura bi mu am yëpp dafa am loolu dama ko àbbu ci Sénégal yi parce que dafa am ñuy wax ne ba jusque am na ñuy wax ne. est-ce que lii jar na ñuy ñuy ñuy mobiliser ay gendarmerie ay police ay ay matériel militaire euh, police sécurité est-ce que est-ce que est-ce que jar na lii fi réew mi toll ñu bloqué lépp ndax lii rek jar na ko. non xam nga mënatuñu am na Sénégalais ñu gisee noonu. non non mënatuñu wax mënatuñu wax loolu di ko di ko neenal mënu mënuñu ko xam lan moo tax. Mhm. Euh, parce que ci ku mu dal. du n'importe qui. waaw loolu laa la wax nag bien que même même bu daloon ci keneen aussi mën nañu ko gérer autrement. non mais justement c'est que ñaari mbir ñoo am d'abord ci ku mu dal du ko tuuti. am na lu mu tekki ci réew mi. ci dafa am lu ko ko may. am na a dal ci réew ay temps yoo xam ni bon au nord du ci jamono Ablaye Wade ñu naan ko ci bon du ñu tudd tur mais amoon na fi ay ci gannaaw quoi. oui oui mais mais yooyu moom boo ko gëm-gëmaleeg Macky ci mbirum démocratie moom xam naa ne waa PDS dinañ am lu leen métti ndax lu yàlla ak yàlli la Ablaye Wade nu mu bu d'accordul ak yow tamit dina xeex pour yow li nga d'accordul noonu nga mën ko waxal sa bopp noonu la Ablaye Wade mel kii nii c'est l'exact contraire bëggul dégg kenn ku ko critiquer il prend tout sur lui ba pare jàpp ne képp ku mu ëpp dool dafa war a jaar sa kaw écraser la donc Ablaye doo ko gëm-gëmal ak Macky Sall. non non léegi maa ngi maa ngi ñëw nag ci sa question bi. oui. Euh, lii du simple fait divers. ñiy waxee noonu am na fu ñu leen mën a comprendre parce que réew mi am na leneen lu mu taloon. voilà ci pandémie bi fi mu toll yow mënuloo am réew moo. xamante ne feebar nekk fii ñuy. gën a garaaw nit ñi di gën di dee ñi ñu recensé ak ñi ñu recensé wul man xam naa ñu bëri ñoo xam te ne buñ ma bu ma demee jaale ji ñu wax ma ne lii moo leen faat man ragal naa ne Covid la te kenn décompté wu leen te loolu bëri na fu mu xew certainement ci biir Sénégal. économie bi lompoñ njàng mu demewul noonu tey am nañu lu mat presque euh, des milliers d'étudiants yoo xam ne kenn orienté wu c'est-à-dire mosuñu leen sax bu ñu amee bac jël leen yóbbu leen ci université nii privé nii public ñu ngi toog seen kër yi am na ñoo xamante ne ñu ngi leen doon fayal ci ay école laata pay bi di jeex école yooyu dàq nañu leen kon Sénégal bëri na loo xamante ne waroon na ko mën a toppatoo mais boo amee président boo xamante ne amul grandeur waaye lu ko soxal mooy xool naka la faagaagalee adversaire politique am bëggul jàmmarloo kenn koo xamante ne euh, xam na ne kii mën na ko créer problème ci ni koy askan yi jëlee dugal ko seen xol bu boobaa bu li amee du la bett waaye lu ñu waroon mën a soofantal la sax bu fekkoon ne lu am la. waaye ah, amul moo tax ma ne ba am wala amul. moo tax ma am na wala amul. mais est-ce que jaroon na mais mais justement puisque président bu mel noonu la ñu am nag lii mbetteel la nit la ci nit ñi am déception la ci nit ñi am parce que du fii la ñuy xaar ñuy jiite ñu nekk ci ay complot yoo xamante ne sénégalais yi vaccin yi ñu waroon di waxtaane nii sax mbir mi def ko suul. et c'est regrettable c'est une très mauvaise publicité pour la démocratie beneen affaire bi nag mooy ñi nga xamante ne dañu jàpp ne mais lii na ko c'est que dañu xamul enjeu yi. xëy na wala mesure wu ñu enjeu yi parce que enjeu yi nekkul na rek président sonk Sonko dem ci affaire bii dem tribunal ñu jox ko ñu jox ko dëgg wala ñu bañ ko jox dëgg enjeu yi du loolu. enjeu yi dafa am loo xamante ne dafa nekk di samp Sénégal ñu toog di ko seetaan président boo xamante ne dafa ñëw ci contexte laata ñu koy fal mu ne bu ñu ma falee cinq ans lay def damay wàññi sam mandat dem taxaw fu ne wax ko. muy njiit. muy wax na ko France. exactement nekk référence boo xamante ne. ñun dañuy jàpp ne bu ñu ko doon tànn dañoo tànn ci kenn ci ñu gën ci réew mi parce que bu ñu dee tànn njiit on est supposé avoir choisi le meilleur d'entre nous mhm. mu wax wax waxati waxeet mu mel ni dérangé wul kenn lu mu waxoon yëpp mu teg ko ne def leneen ñëwaat ci référendum bi ne man affaire mandat bi verrouillé naa ko problème mu délai bi rek laa doon réglé wax ko ay ñoñam wax ko ki nga xamante ne moo ko bind ne ñi koy liir dafa mel ne liiruñu constitution bi répété j'ai dit nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs bamtu ko ñetti yoon moom wax na ci làmmiñu boppam ne maa ko verrouillé ku wax baat boobu koy jeex na. gis nga nag bu mu ñëwaatee 31 décembre déjà mille décembre 2018 lan la waxoon dafa ne man am naa mandat sept ans ba pare bu ma sénégalais yi wóoluwaatee ci 2019 bii ñuy dem dénkaat ma damay daal di def sept ans plus cinq ans muy douze il faudra partir loolu dafa leer. mu jóge fa nag bu mu faloo ba pare delluwaat ci même bërëb ba ñu laajaat ko même laaj bi lu tax tontuwul même tontu gi mu daldi di commencé andi njuuj njaaj ne duma ci répondre waaw duma ci répondre déet puisque kàddum ci mais il a no répondu non non non non parce que je ne répondrai ni oui ni non waxoon non c'est fini pour moi moo gënoon gàtt yemu ca mu wax ay ñoñam ñépp attention bu ci kenn lu adooti ba fan yii avant lii di xew lan nga nekk déggoon ñu sa ñu ñoom commencé di wax de façon conseil constitutionnel moo décidé de toute façon conseil constitutionnel moo décidé mais est-ce que ñun waxam ak interprétation bu ñu wax ne moom lañu bëgg am moom lu mu ñu jaay ci bu ñu doon voté référendum bi loolu yëpp dafa amatul benn sens ay ñoñam sax mu am ñoo xam te ne dañu commencé wax ne ñun ak moom la ba 2035 imagine nga loolu nu mu grave ça signifie que nekkatul sax question troisième mandat waaye moom mu ngi xalaat dès que ñu jox ko troisième mandat naka lay sotelee le verrou de la limitation des mandats mais ci troisième boobu nañ def foofu point d'interrogation parce que rien ne nous dit que Macky Sall dana ko def amaguñ ci benn preuve. c'est vrai am na actes yu ñu posé ay loolu c'est c'est ay wax la moom li mu wax wax na ko ba pare nee na verrouillé naa ko seetaan leen ba xam moo tax ma ne est-ce que yaakaar nga ne li ko na xuloo bi yépp. non non bu ko jarul woon du nekk ci ay complot bu ko jarul woon. du nekk di def yu bari yoo xamante ne mu ngi koy def ci loo xamante ne dafay dafay lomp ñal démocratie yow boo xamee ne da ngay dem dans quatre ans lan moo war a tax ngay traqué ay opposants ñi nga xamante ne mënoo leen corrompre par des postes de sinécure nga di leen traqué ñi nga xamante ne mën nga leen corrompre nga di leen jël di leen yóbbu ci poste yoo xamante ne ñoom ci seen bopp ñoo ko loon seen bopp ba pare ngay wax ne de toute façon ñun ñi fi regroupé wu tey on fait pour cent de l' comme si ñu leen voté loon yéen da ngeen leen jënd signé ak ñoom contrat boo xamante ne abadan daayiman bu ñu leen voté les prochaines élections yéen la ñuy voté loolu ñàkk respecté sénégalais ak ñàkk leen weg weesuwu ko waaye na sénégalais yi xam ne Macky Sall lu mu nekk di samp fu mu toll nii mooy benn clan wala dynastie pétrogazière boo xamante ne ñu fi jóge parce que gis nañu ressources naturelles yoo xamante ne bëgguñu ko won gannaaw perspective bàyyi nguur dem mener une vie normale xam na après le pouvoir y une vie loolu makisal Sall ci boppam daf ko intégré wul ah bon? te posé benn acte boo xamante ne ça dans le sens de pacifier le Sénégal dem ci Sénégal gu dal mu def ni mu ci war a def genn par la grande porte non ba léegi ci ay règlement de compte lay nekk ay petit complot yoo xamante ne amul benn président bu diñ bëgg a sortir par la grande porte de l'histoire mooy doxale noonu. lan ngeen yaakaar ci justice bi fii ñu toll nii tembe comme yéen wóoruwu leen Macky Sall wax ngeen ne mooma est-ce que daf dafay impliquer ne même justice bi. bon am na ñu ko wax man waxuma ko mais dañoo wax dañ leen instrumentaliser justice bi dafa nekk à deux vitesses nangam nangam dañoo amuk péete est-ce que yéen ñi ay cadre jàng xam ni yëf yi di doxee man mbooloo moom ngelaw loolu mën na leen a yóbbaale. wala da nga du ngelaw gu ñu yóbbaale c'est que yi di wax yooyu tamit dof du ay du ñu ay dof wala ba wala ñu ñu nekk ñoo xamante ne ñun ñoo leen gën a jàng ñu ñu gën a jàng fopp ñoo koy wax. ñi nga xamante ne ñoo tolloog ñun njàng ñu ngi koy wax ñi xamante ne ñoo ñu yées njàng waaye ñu gën ñoo mën a seetlu di déglu débat di déglu rajo di seetaan débat yépp xam li ñëpp xam ñoo koy wax ñenn ñi dund ko sax ci ci tribunaux yi balaa ngay gën a am découragement ci justice Sénégal nga dem toog ak avocat yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay liggéey guddeeg bi ci suba ak ngoon ñu xamante bu baax seen biir ñoom ñoo lay wax ne man fii laay liggéey waaye gëw ma gëw ma justice Sénégal loolu sénégalais bu toog wéet ne je crois la justice de mon pays il faut laisser la rek da nga commencé soit da nga commencé am loo fàtte wala seetlu woo ko wala nga bëgg justice nekk bras armé comme nu mu ko mosaana nekkee mais foog nga ne justice bu bu bu, bu am doole gu mu war am ci biir dëkk dina toog def un acte d'interdiction de sortie du territoire à Ousmane Ngom président de la République jël Ousmane Ngom dugal ko ci avion sachant que il est interdit de sortie du territoire dem yóbbu ko mu voyager justice boobu lañ am justice boobu lan la représentant terme termes de contre-pouvoir tey ñun bu ñu defee suñu problème 94 milliards est-ce que dégg nga ci procureur àddu ci bële déggoo ko foofu lañ ko mujj bàyyi dem ci juge d'instruction lan lañ ci wax amuñu intérêt agir parce que on n'a rien perdu mais l'action publique reste là parce que dërëmu Sénégal la du bu mu la tere nga saytu même boo jàppee ne pour Ousmane Sonko euh, amul intérêt à agir yow tu as connaissance des faits délictuels ou supposés infraction mais lan moo la tere nga càmbar ko parce que 94 milliards du caaxaan mais ba tey fourage dal di xideen ak yeneen ak yeneen vingt deux personnes yu waxoon ni ñoom la ñuy topp ci traque des biens mal ak yi ni mu la ko waxee ana Omar Sarr ministre de de de l' énergie et de de je ne sais quoi ñeneen ñi ñi ngi ci déggoon yëpp ñëpp a Macky Sall xëcc na leen ci wetam justice boobu leen doon topp ba tëj ci doomu jàmbur 3 ans justice boobu est ce que moom yóbbu ko kaso est ce que moom justice boobu moo supervisé ñu ñëw ne ko ropet ci suñu kaso guñ ko tëjoon yóbbu ko Qatar ana luñ luñ ko doon toppee ban dërëm la ci fay. justice bi nga xamante ne bi maître contractuel yi amee problème ak seriñ Mbaye Thiam dem cour suprême gagné président de la république moo leen wax moo wax seriñ Mbaye Thiam bul topp décision cour suprême bi justice boobu anamu sénégalais yi amul benn ngelaw gu yóbbaale kenn waaye lu ne fàng jarto wone sénégalais yëpp xam ne justice Sénégal bu ñu am justice gu normalu la mu am ci ay juges yoo xamante ne nag du ñëpp am na juges yoo xamante ne c'est des juges vertueux am na juges yoo xamante ne c'est des juges incorruptibles waaye corporation boo dem bi ma ci bokk ak bu keneen bokk mu ñoo yem am nay nit ñoo xamante ne am nañu faiblesse soit psychologique il cède à la pression soit wóolu ñu yàlla parce que jàpp nañ seen carrière ci loxo nit la nekk soit am na fu ñu leen téye ba lu ñu leen defloo duñ ko mën a bañ ñoo ñooñu lépp luy taal réew mi tant que ñoom jàpp nañ ni dinañ sowe dañ koy def tant que ñi leen koy sant mooy seen supérieur hiérarchie dañ ko supérieur hiérarchique dañ koy def justice boobu nag c'est une justice aux ordres te bi ñu defee euh, le référendum gars yi ne on va avoir plus d'indépendance de la justice bu voté référendum bi semaine bi ci topp boobu la union des magistrats du Sénégal génn pour décréer l'absence d'indépendance de la justice au Sénégal ana conclusion commission nationale de réforme des institutions bi Macky Sall santaane woon lu ñu waxoon ne loolu la ñuy def ci justice bi lan lañ ci def dara te pourtant suñu xaalis lañ jël jox ay doomu Sénégal ñu xaar seen tànk tuba ak coono gu métti dem déglu sénégalais yépp ban réew lañu bëgg a jox euh, lañ bëgg am Sénégal à partir de de année bu ñu ko doon def jëmale ko ci réew mi nga xam ne mën nañ tabax ay fondement état de droit bu solide jox leen seen xaalis ñu jël seen temps def seen fora partout au Sénégal tënk seen assise national sous la direction de liminant Makhtar Mbow ak des professeurs d'université ak d'autres personnes de la société civile lan moo ci lan lañ ci daf ko jël ne lu ma ci arrangé rek lay jël waxul na luy arrangé Sénégal de moom lu ko arrangé moom maanaam luy. tax na moom danaa seet li ma ci li ma ci mën a signé ma signé li ci des ma. maanaam lu ko arrangé kon seetul lu arrangé Sénégal kooku noonu mënul nekk ci kaw réew ba pare di di dem violence bu muy demee ci procès Khalifa sal dañuy salfaañi ak ak fam yëpp ba ñu dem CEDEAO CEDEAO condamné ko. dès que la CEDEAO a son arrêt sur la violation de ses conditions de détention ndax l'absence d'assistance d'un avocat toute la procédure. moom moo njëkk a génne lu mu bëgg a def kenn mënu ko tere mu def ko fan lañ ci mujje fii d'accord est-ce que euh, d'accord euh, ci euh, Bassirou Diomaye Faye ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu yooyu la waaye nag ba léegi ñu ngi ci émission bi dafa am ci discours Ousmane Sonko ay luñ ci mën a luñ mën a décortiquer ay yu bëree bëri. suñu suñu xoolee parce que buñ la jàngalee discours parfois mu ay contraste parfois mu am yoo xam ni dañ ci mën a ja mais ci discours bi dafa dafa tudd plus de trois ou quatre fois mu mu sargal gendarmerie. en même temps ci même moment yooyu ci même discours bi mu joxañ baaraam procureur te ñaar yooyu sorewuñu ban ban lecture nga am foofu. parce que gendarmerie. non gendarmerie il, il non. non c'est les militaires et ils et tout. leen sargal. non c'est plus que ça c'est c'est plus que ça franchement te man li ma seetlu suñu engagement poli dinaa la jox rek quelque firnde. gendarmerie euh, man dem leen côtoyer ci kaaw dossier Ndingler. waay bu fa intervenir dafa am ñi nekkoon ci dossier yi génnoon def benn interview jam leen baaraamu tuuma. automatiquement dañu diligenter enquête pour xam est-ce que lu ñuy tuumal gendarmerie noonu dafa am ay nit ñu nekk ci biir gendarmerie yu doxalee noonu parce que c'est un corps qui est obsédé par son image bu jàpp ne institution la que ñi fi nekk amul kenn koo xamante ne da ko war a gàkkal laata ngay def de ce point de vue là duñ ci transiger kenn du nguur du keneen maanaam ils font convenablement leur travail ils sont sérieux non franchement sérieux boobu mënuloo ko bañ mënuloo lañ ko bañ a reconnaître beneen dossier bi mooy fii nii dafa dafa may suñu ñeenti ndaw ñoo xamante ne bu ñu jógee ci jotoon am fii di ñibbi. ñu ngi leen fekk ci arrêt bi ay nit ay gendarme gis leen nee leen yéen ci marché bi ngeen jógee embarqué leen yóbbu ci gendarmerie Wakaam. benn gendarme bu zélé suñu futti leen dóor leen ba ñu ba ñu ne nem ba seen ndigli diggu gannaaw yi tër gën summi leen foto leen sotti leen ndox mu sedd loolu du gendarmerie en tant que institution moo organiser loolu ma mu koy superviser bu ñu ñëwee ñu woon ñu ko ñu ànd ak avocat bi dañu dem gis commandant bi commandant bi ànd ak suñu avocat dem ci grille booy sumee ko ñu gis ko automatiquement dafa woo ku ko def ne dina jël les mesures disciplinaires qu'il faut parce que lii du lu mu war a def jour boobu la entendre booy yi amul lenn lu ñu leen di toppee ñu libérer donc corps boobu c'est un corps d'élite qui à son image et la soigne sur le terrain ànd ci professionnalisme boo xamante ne boo leen sargalul tamit bu bësu bu bësu duut leen baaramu tuuma jotee doo doo ko mën a def parce que objectivité mooy bu nit defee lu mu war a def nga ne nga ne ko uh-huh. ja nga nga jëfal ko uh-huh. bu mu defee lu mu war a def ci réew mi nga xam te ñëpp a ko bokk nga ne ko li nga def ni waruloo ko def uh-huh. moo tax mënul bañ a sargal jaajëfal gendarmerie ak yenn force de l'ordre parce que la police aussi am na loo xamante ne remarqué nañ ko dénoncé nañ ko def nañ communiqué de mime de menacé mais on maintient lu ñu leen tuumal cela ne veut pas dire que tous les policiers son comme ça pour ñun tamit l'essentiel de la police ils sont en train de faire un excellent travail par contre lu ñu gis démb ci buntu président Ousmane Sonko loolu luy gàkkal image police la ñëw andi sa van gaare ko à deux à deux mètres de de de de de de. Euh, de la maison d'un leader politique je ne parle même pas du fait ñu barricade tout le coin booy dugg ñu lay fooy jëm Ousmane Sonko quand même à ce que il est présumé innocent dañ ko jiiñ tuuma rek kenn waxagul na kenn kenn mënagul wax ne yoon jàpp na yaa ko def donc il garde la liberté. présomption d'innocence mais boo amee présomption d'innocence man droit yi ma am yépp nit ñëw seet si ma te kenn du ko ne fan ngay jëm kenn barricadewul sama kër c'est le mêmes droits et les mêmes prérogatives la yore oto. équiper ko d'un dispositif de surveillance et d'écoute di brouiller les vidéos de surveillance de sa maison di intercepter communication yi loolu dafa ruslu et c'est pas à cela que doit servir doivent servir les corps loolu noonu ni ko président Ousmane ko waxee dem c'est excellent mais nañ ko dem dans un contexte de terrorisme nañ ko dem jëmale foofu ci contexte bi nga xamante ne insécurité am na ci yenn zones yi nañ ko dem yóbbul ko foofu mais pour pourquoi mobiliser autant d'arsenal jël un véhicule d'écoute téléphonique de la police ñoo ne ko fa fan ñu am ay altercation ñuy photo sax agents yi nga xamante ne ils sont dédiés à ces la là ça signifie que on les met dans une situation d'inconfort boo xamante ne couverture bu ñu soxla ëllëg pour def seen liggéey dootuñ ko mën a defati et c'est pas comme ça qu'un corps d'élite doit fonctionner mais ñoom ñoo war a bañ ñi nga xamante ne dañ ciy ñëw romb ñuy gàkkal deru police wala deru gendarmerie wala deru armée ci yooyu parce que ces forces de l'ordre la elles doivent être citoyennes et être à côté du peuple bu ñu sentir ne que askan bi lii mooy seen jëmukaay. comme comme mais comme bu mais attention bu fekkente ne jàpp nañ ne constitution bi Macky Sall mooy premier militaire du <laughs> wala général du du pays est force de l'ordre yëpp bu fekkente ne jo ndegam jox na ko waxuma ne moo leen jox ndigal mais est ce que ñu am nañ indépendance boobu aussi bien que gendarmerie moom rafetlu nañ ñu bare bari seen liggéey mais bon est ce que foofu tam amul lëndëm lëndëm. non xam nga lépp am na loo xamante ne ki nekk ci kaw ko bañee. Mhm. du wàccee ordre yi. li ñu mën mooy defoon naa la tel poste léegi dem lay changer mais na la changer na la changer c'est que un fonctionnaire de l'État quel que soit corps bu mu bokk bu commencé xalaat na rek dafa war a jëfee jëm ci fi nga xamante ne moo dul yoon ndax sant na ko ko te lalawul ci lenn lu dul dafay ragal avancement am ñu gàkkal ko gëm yàlla gi des na te un État da ngay dem États-Unis président des États-Unis le président le plus puissant des États-Unis day war a génn garde corps am ne ko préposé sécurité bi mënuloo génn boo waxee mu ne ko c'est les point parce que day jàpp ne moom du président moo ko fa teg États-Unis moo ko fa teg pour muy wattul États-Unis kaaraange chef de l'État bu chef de l'État bëggee wàcc yoon googu rek moom day def lu mu war a def fa lay yem. d'accord léegi suppose léegi léegi mën nañoo jàpp ne euh, euh, euh, léegi tegg nañu ci gis gi tegg nañu kiiraayu par exemple Ousmane Sonko. léegi lu ci des kon tribunal. non xam naa dañ koy tey parce wax ne bu ñu ko teggee parce que. waaw bu ñu ko teggee parce que bien que comme émission bi am na waxtu wuñ ko defee d' accord amul problème te ñu ngi ci bésu àjjuma bi nga xam ne sax xam nañ dañ koy teggi parce que yaakaar naa ne boog dañ koy teggi. Mm-hmm. parce que député yi ma gis tey ak ni ma la gisee seen majorité bi yéen a leen tuddee majorité mécanique <laughs> xam nga loolu moom. <laughs> loolu moom waaw d' naa ci ak yow. waaw <laughs> comme mais comme dañ koy teggi. buñ ko teggee tribunal lañ jëm. waaw buñ ko teggee. tribunal lañ jëm mais parce que moom dafa cohérent depuis le départ bi mbir mi xewee dañ ko andil convocation. Mhm. jël maraam ki malaanu kiiraayam teg ko fee indil ko convocation. Mhm. mu ne leen man dama am immunité parlementaire waru leen ma mën a convoqué kon bàyyi leen ba ngeen ba sama malaanu kiiraay boobu ñu topp procédure bi. pour summi ko bu ñu toppee procédure bi ba summi ko man dinaa dem wuyu ji bu fekkee ne dañ ko def 10 heures ma def ko 10 heures 5 mais ñoom ñu nekk di baral mbir mi ba lépp luñ ci war a def defuñu ko procédure bi toppuñu ko mu ne leen kon li ngeen di def nii bu fekkee ne procédure ngeen war a topp pour summi sama malaanu kiiraay te topp leen procédure boobu lu ngeen mën di def man damay jàpp ne ko sumuw leen sama malaanu kiiraay parce que ak ak yelleefu aadama tamit bu ñu ko lalee sa procédure même nit boo ko fekkoon tey yàlla na bu mu mës a am muy rendi nit nga fekk ko paaka gis lépp filmé du nu la neex nga koy yóbboo ci yoon da ngay topp procédure parce que ñun ñoo charte ñoo nangu ne suñu charte réew noonu lay doxe te fépp foo dem dafay am ay charte mhm. donc boo toppiwul charte yooyu résultat bi nga mën a am kooku mën na considérer ne même boo jàppee ne résultat bi am résultat bi baaxul mu continuer ci nekk en phase avec lui topp leen procédure bi def leen lu leen neex sama procédure demul léegi li ngeen mën a def nag mooy lu mu wax Macky Sall bu fekkee ne da nga bëgg koo liquider di nga taxal sa dinga nga sa sa sa loxo waaye doo ko sant ay nit ñoo xamante ne da ngay làqu si seen gannaaw ñu bañ a respecter procédure parce que ñoom ñoo nekk majorité def lu leen neex loolu du lu mën a dem. waaw léegi bu bu ko bu ko yoon wooyee na ko ñëwal moom mu ne. dañoo salfaañi assemblée nationale ci commission ad bi ni waroon a tëdd am na sax ñu démissionné tekk seen dombay tànk yooyu y a un problème parce que koo xam ne quorum bi mat na wala matul ya en tout cas seen loi yi boobu matul léegi su lànkee na du dem nguur gi bu ñu utiliser force dem jëli ko nag c'est juste une éventualité seen ah, c'est très forte probabilité même parce que ñoom noonu lañ mos di doxale Macky Sall adversaire politique am ñaar la ci xam liquidation mhm. bu ñu demee sénégalais yi ba léegi xamuñu ne bu ñu rajee président Ousmane sonk ba léegi acte bi ko rajee mosu ko mosuñu ko notifié ci presse la ko yéegi ba fu may wax ak yow nii jotu ba lu ko dàqee ba léegi Ousmane. ci inspection ba léegi kenn joxu ko ko bind ne ko kayit lay dàq. RFM moo ko woowoon ne ko dàq nañ la léegi loo ci xam mu ne ko kañ lañ ma dàq ko. mu ne on a ko ko oui. ba nii ko jox. kenn tegu ko ci loxoom ne ko Ousmane Sonko dàq na la ci inspection. déedéet c'était verbal kon. dañ ay propos rek la ñu tudd du mu gisee muy circuler ci internet bi rajo yi di ko waxee ba ni mosu kenn mosu. lu tax notifié wuñ ko ko. mais justement mooy li ma la wax chercher à humilier un adversaire politique à détruire à liquider loolu mooy Macky Sall. waaw ah, façon façon la. exactement kon bu utiliser la même force pour dem jëli président Ousmane Sonko amul lenn loo xamante ne def ñu ciy bett mais li ciy des nag mooy sénégal yi nga xamante ne àq ak yelleefu doomu aadama. xeex justice xeex démocratie xeex liberté xeex pour démocratie taxaw xeex pour ñu bañ a salfaañi liberté yi nga xam te yàgg nañ ko xeex est que dañuy seetaan loolu mu continuer am dëkk bi na teg mel ni que tout normal quoi loolu interrogation la boo xamante ne ñu ngi ciy xaar Sénégalais yi. bien Ousmane moom xam naa ne dafa mel na li wax dana ko def du dem. bu ko buñ ko bon buñ ko jëlee man nañ ko bañ a jël si tamit ak force mën nañoo waxtaan ak moom ne ko génnal mu ànd mu ànd ak ma supposé loolu comme mën nañ ko fëkk dugal ko cote bi yóbbu ko attaji ko wala ñu yóbbu ko tëj ko fenn bu keroogee lan may xew bu xaw ma xaw ma parce que tey am na luy xew sénégalais yi ñoo xam am na loo xamante ne ñun xam lu ñu mën euh, sëñ Maodo mooy wax ak sénégalais yi won leen li nga xamante ne mooy danger yi ñu gis muy menacer suñu équilibre société wax ceeg ñoom wax leen ni lii leen jàpp na lii leen nit ñu war a def tey ñu ngi salfaañe démocratie ñu ngi dox vers projet de monarchisation maanaam nañu fexe ba samp nguur kenn ku nekk ci Sénégal muy buur di bumi sénégalais yi bu fekkee ne lu ñu war a mën a nangu la na ku ne xam ne président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye Birame Souleye Abass Fall ñuy jëm tëj leen te reproché wu ñu leen dara mën nañu am seen tur tey waaye turu kenn du mos a weesu parce que fépp fa dictature am dañuy commencer par liquider opposition bi buñ ci paree. presse la dem ak tous les porteurs de voix yoo xamante ne. voix bi kay presse bi seen yoon ñoom ah. fi démocratie amul yëpp presse amul fa loolu am nañ ko gis nañ ko ci yenn réew yi d'accord li ñuy jeexale Pape euh, Bassirou Diomaye li ñuy bokk ci cadre yi li ñuy jeexale mooy yéen su ma leen déggee da ngeen a considérer Macky Sall comme un dictateur. dictateur la. ah bon da koy la. dictateur la tey lu muy doxal yëpp dictature la. ah bon oui 2017 élection législative processus électoral cavalier toog ba 11h midi Touba amul ay urne Mbour amul ay urne fépp fu mu jàppoon ne am na fa faiblesse yóbbu fa urne yi wala bulletin à temps temps normal fan la ci mujjee l'essentiel c'est qu'on a gagné féliciter son ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo à l'époque 2019 rebolote élection présidentielle. mu écarté opposition bi moo désigné carte électoram électoralam moo jël fichier électoralam ak kii moo ko ñu mu jàpp ne ñoo ñoom la àndal muy jël seen responsable ñuy yóbbu seen militan yi seen carte électeur képp ñëpp ñu mu jàpp ne ñii boo moytul du ñu ànd ak man notamment ndaw ñi mu bañ leen jox seen carte électeur ñu nekk ci démocratie sélective boo xamante ne ñi war a mën a votel nit pour mu makk yee l'accession démocratique au pouvoir son maintien moom ñoom ñooy jot seen seen seen seen carte électeur ñeneen ñoo xam te ne mën nañu votel ñeneen duñ jot seen carte électeur Bassirou ñu ngi lay sant. maa ngi leen di la gërëm baax a baax. Euh, looy looy looy tëjee quoi en résumé. li may tëjee mooy ñun dañu woote résistance Ousmane lu mu wax démb dafa leer dafa ne j'invoque mon droit constitutionnel naturel et individuel de résister nu muy résister mu ngi ci depuis le départ. lépp loo xamante ne day salfaañi ak ak yeleef ak yeleefam def ci bañ a ànd du collaborer ci lenn loo xamante ne dafay salfaañi ak ak yeleefam parce que kon ëllëg day légitimer ñu mën a salfaañi ak ak yeleefu beneen doomu aadama bu nekk biir Séné biir Sénégal léegi sénégalais bu nekk nag yaa am sa responsabilité individuelle puisque tu es un maanaam lii fekk na la fi am na loo xamante ne ñoom Mamadou Diack ñu mu àndaloon xeexoon nañ ko Cheikh Anta ñu mu àndaloon xeexoon nañ ko 23 juin am na ñoo xamante ne ay xale lañ woon dix ans peut-être ren am nañu vingt et un ans wala vingt deux ans ñooñu tamit am na loo xam te ne ñoom ñoo ñoo euh, mënuñu woon bokk ci xeex bi vingt trois juin deux mille onze am na ñu mot ak doole gu leen mën a tax tey bu ñu waree mën a bañ ñu dugg ci bañ génération bu nekk nag di am sa mission boo xamante ne yow la fi fekk ak i démocratique yoo xamante ne ni mu ko waxee ay nit ñàkk nañ ci seen bakkan ñii dee ci ñii ñu tëj leen ci hmm. ba ñun ñu ci ci bénéficier wu tey ñun ñoo am responsabilité préserver ko te nañ koy préserver mooy de manière pacifique sénégalais yi gën bañ nooteel balaa muy gën a am doole parce que bu ñu bàyyee lii mu gën a am doole nii. Mhm. dina lor ko nett dootuñ ci mën a dootuñ ci mën lu bari. d'accord Bassirou ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm kon xam naa beneen dimanche incha allah daañu dikkaat ci beneen homme politique jërë ngeen jëf wasalaam merci beaucoup jërëjëf.